dal leen ak jàmm nataalub njiitu réew mi di président Macky Sall ak Marine Le Pen daanaka ñoo nekk ci fépp ci yéen ak ay yu nu xëyandool l'observateur ne la ko waral moo di journal français bi nu duppee le point moo xibaar ne njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall ak Marine Le Pen mi fi amal tukkib nemmeeku seq nañu waxtaan cib audience journal Futur Média bi ne loolee moo jur coow ndax ñu bëri danoo jàpp ne ku xam ndaw si dëgg ak taxawaayam xam ne du yoon njiitu réew mi di ko dalal yéenekaay bi ne am na itam ay spécialistes yu jàpp ne loolee dara nekku ci Massamba Kane ci tribune yéenekaay ne Macky Sall bu dee Maliens la bëgg na xool keneen ndax Marine Le Pen du waaja Mamadou Lamine Diallo ni gàcce dëgg mënta weesu réewum Sénégal di dalal ndaw su mel ni Marine Le Pen Walf Quotidien dalal na ko audience ba secret la waaye dafa mujjee siiw Marine Le Pen ne Macky Sall góor gu charmant la Aminata Touré ne moom mënta gëm ni njiitu réewum Sénégal dina toog sax di waxtaan ak moom lii Quotidien axakay ah Marine Le Pen séq na waxtaan ak président Macky Sall wax nan itam ci lu bari waaye mbirum racisme moom jibu fa Aminata Touré ne déedéet moom mënta gëm bi lépp xibaar xibaar moom Aminata Touré Vox Populi moo xëy di ko xibaar journal bi ne conseil constitutionnel gàntal na la fa Aminata ak Guy Marius Sagna yóbbu woon ngir boole nguur gi fi nekk ci ñu dem wuj ji pencum ndawi réew ma di assemblée nationale ngir leeral léexoor gi ñu leen tudd turu Cheikh Yérim Seck bokk na ci li gën a fës ci ayu bés bi ñu nekk journal L'Info livre bi mu génnee duppee ko Macky Sall face à l'histoire moo ko waral ndax journaliste bi mbóot yu bari la ca soli yéenekaay bi jël bi la yoon pàcc bi mu jaglee la compagnie d'électricité du Sénégal ca chapitre 5 la nekk waar la yërim wax de moo ca am taxit waa compagnie bi mer ba futtu lañ def dal génn weddi ko ba mu set keneen ku weddi ba mu set li Cheikh Yérim Seck wax ci bileb livre moo di Ousmane Sonko ci ay tànkam la njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall nekk journal bi ne Macky la mu waxoon ba tey moo nga ca moo di réduire l'opposition à sa plus simple expression mu di néewal ku jéggi doole te ca loolee la nekk ba tey ndax fi mu toll Sud du Quotidien nee na ëllëgu Ousmane Sonko ci langue politique gi ko laaj wala Karim Meïssa Wade Mame Mbaye Niang bàyyilu ko dara moom Ousmane Sonko Direct moo ko dalal Mame Mbaye Niang di fa tontu benn benn kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati keroog bi muy janloo ko taskatu xibaar yi Mame Mbaye Niang ci lépp la wax ba wax ci li dox ci digganteem ak aji saar mu ne Ousmane Sonko faw mu dem ci ab procès te képp ku ko doon wax naan ko loolee du am te ko doon nax Amérique nee na naxuñu Afrique le Soleil national ne secrétaire trésor états moo ngi ci Sénégal Janet Yellen la tudd nee na bëgg-bëggu États-Unis moo di gis dendu Afrique mu yéeg ba ca kaw am naataange loole ndaw si nee na dinañ ca dugal seen loxo enquête yéen kaay duppee ko new deal di lëkkaloo bu yees bu dox ci diggante États-Unis d'Amérique ak Afrique ba noppi ne gagnant-gagnant lay doon bi yoon Washington boole ci di layal déndu Afrique ngir bor bi nu amee ñu woyofal leen ko janet yeleen ne biir na leen ñoom waa États-Unis ne déndu Afrique bés dina ñëw ñu am naataange ba yëg ko ci wàllu koom le quotidien ne Moustapha Ba di jëwriñ gi nu dénk budget ak finance ci nguurug Sénégal ne waxtaan nan itam ak ndaw si ci lu jëm ci diggante Dakar ak Bamako ba américains yi koppar giñ ci soxla toll ci ñetti milliards ci xaalisu euro benn million ci xaalisu CFA moom la université du Sahel di laaj nguuruk Sénégal L'As Quotidien moo tax ba daara ju kawe ji lànk ne du joxe étudiants yi fa jànge ba noppi seeni lijaasa loka Afrika am na lu bees Les Échos ne fi mu bàyyi ba di Amadou Ba am na ndam ci kaw doom ja di Xaadim Ba cour d'appel moo leen atte atteb tiktokeur bii di Samba Ka mënta ñàkk L'Observateur ne boroom rang cat dëgg moo ko topp police bu Linguère moo ndax moom Samba Ka moom la ñu gis ci caméra surveillance mu dugg ci magasinub jàmbur yore torsu di nit ngir yóbbu koppar ya fa nekk lii tax démb ci digg bëccëg takk der yi teg ko loxo Samba Ka boroom rang ci kanamu takk der yi ne siiw gi mu jot a siiw moo ko jural musiba tax mu tàmbalee tojee ndax ay mbokkam danoo jàpp ne dafa yore xaalis ba tax ñuy sàkku ci moom ndimbal saa su nekk lii tax mu doon lijjanti koppar ngir saafaraal leen li nu bëgg di lu doy waar li doy waar dëgg kay ci commune bu Bembu département bu Saraya région bu Kédougou la xewe libération yéene jigéen duggoon ngir am lu nu yóbbu seeni kër muy Dalla Diallo Lemaane soxo ak faatu Fatou Sissoko kàmb gënu duggoon di gaas moom màbb ca seen kaw suuf sa jatt leen laataa ñu leen di wàllu ñoom ñépp ñu ñàkk seen bakkan cheetetetet mais yow sawaay yow yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette